Bonjour les célibataires maarlewule ween ka am Makabas an Tifli génne nañ cun bu es tuddee ko Wagwan Wagwan boobu noonu Makabas mu ngi siy tontu ki nga xamante ne mooy Jizzle ndax xam ngeen ne Jizzle ak Molze ñoo fi génne woon Massi boo te Jizzle mu ngi yow bul ma dis online bul dis online Makabas ne ko ngay fen dañ la dis online who did bad man Jizzle ne ko Pushy su ma gisee ne ka Pushy real life Makabas tam tontuwaat si Pushy bi you are talking about Pushy yaa ñu gis rek ne ka Pushy real life Jazul ne mu ngi si kaw santotom Maka Bass ñoo wat ko si boobu noonu danga daanu léegi gémmi mu sa kaw tontu wante bi mu ngi daw xam ngeen ne dekk bi léegi lool mo fi wax da nga gene dara ñu ne ko saata ki di xuloo kii fii nii ki di hecho li ni grand president mo fi jaar di hecho buri Banjul tatu le civilize bandit bi gaa ñu ngi koo xëccoo li si des nag su ma yoon nekku si ngi tok di manu di harbem soti Bam Shorty moom ku ko sàcc banaa yow la please don't forget to like comment and share waaw jamono yi laa gën a réew